ca loxo bi tafaay ñëw. dafa mel ni Moustapha dafa bëgg combat bi gaaw toj na nen bi ñoom ñaar gis nga ko daje nañu ñoom ñaar dóor na léegi Moustapha dóor na léegi. waaw tànku ndi jooram kon tànku ndi jooram. ponkal booy bëre dóor na léegi attention yootu bi baaxul ci ndaamu mu euh, Cheikh Thierno. di liñ ko wax. waaw lu mu def day ñëw. waaw lu mu def day ñëw. ñu ngi lay wax daje daje nañu ñoom ñaar Moustapha jàpp na ko gas jàpp na. moom. bu ko bu attention attention Moustapha. nu ma la wax. waaw dafa dafa. day bëre ak moom ah door na ko door na ko. day bëre ak moom. door na ko. day daa ilaa ila la eh door na ko. door na ko day bëre ak moom. day door day eh door na ko. daje na ñoom ñaar. tànk si kaw bëre nu ma la wax nu ma la wax. pexe la ñëwee. ah. Moustapha Moustapha sonn na. xoolal waaw mais kenn du ko profité il est intelligent gis nga ni muy bu jëlul initiative Sène ba dox ci kawam xool ko ñaar. a Fatou Ndiaye bi Moustapha ah dégg naa Moustapha daw na jàpp ko Moustapha Moustapha sonn na ci combat bu ko nar. mais da ciy récupéré. waaw na na jàpp te jàpp na jàpp a téye attention attention. Quench ndegeñ na ko Moustapha jàpp na Moustapha jàpp dara. jàppul dara. waaw Quench jàpp na. mais ku benn place yëkkati ba ca kaw mu door ko mu. mbërum lébu la. ah jàppoon nañu ñoom ñaar. Eh, ci ñi mu doon danoo fort. ah jàpp. nëgal ba ñu ba nëgal ba